bàyyi ko jottali leen ko ci seen télé télévision Futurs média ànd koog seen xarit nag Ndiaga Seck waaye tey euh, xam naa ni comme ni ko waxee rek léegi dañu ñëw jàpp ci émission bi ñu tuddee leen ay sponsor waaye ñoom tuddewuñ ko loolu dañuy jàpp rek jot naa ci nga xam ne benn kuréel lañ boo xam ne yu mel ni da leen da yitteel lool waaye nag alxayriya baax ak defal ni yàlla ñu tënku ci waa kër njabootu Serigne Abbas Sall na yàlla fay. lii rek la bëggoon ñu ànd ko ak ñoom ñëw nag Tawa Gueye Tawa Gueye nag ci département Gossas mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne di premier ministre moom tabarakallah moom la waa kër waa kër Serigne jàppale. loolu nga xam ni mooy jumaa ja kër Serigne loolu la am nit ku ne lam lay jàppale. mooy la mu am jumaa la am ak lislaam ak yu demee noonu moom la ñuy jàppalee nag kon xam ne li ñuy def si jumaa ji euh, taataan sëriñ Ousmane jam mi nga xam ne moo fi war a jiite ñu ñëw xaar ko mu teewlu bayaan yi ak ñu ci bari dañuy teew ak ki nga xam ne moo tànn ca boppam Sall euh, alaaji nga xam ni euh, yàlla dogal na jeng ci wàllu communication ak yooyu am kon ñu teewlu rek dugg ci jumaa ji taataan li fiy bàyyi ko bu ñu nuppee nag ñu doog a dugg ci waxtaan incha allah lil fala haadiya la wa ashhadu an allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayuha allazina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun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 fa inna almasajida buyutullahi uzina an turfaa wa yuskaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilgudu wal asal xaaluha wa saa taamuluha maa annaas wa saa taamuluha annaas maa maaha wa ahdasa fiha ma yatanafa maa makanatiha wa qudsiyatiha fa amma min haysu alaqati nnaasi biha war alaaqati biha wartiyaadi wartiyaadiha falmasajidu fi xaalibi awqaatiha mahjuratun maglaqatu alabwaab la taftahu illa fi waqti salaa aqulu qawli haaza wa astaghfirullaah lii wa lakum wa la zikrullaahi akbar wallaahu ya'lamuuna maa tasna'uun allaahumma salli alaa sayyidinaa Muhammad al-faatixi limaa ughliqa wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqq wal haadi ilaa siraatikal mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil aziim. innamaa hiya li zikrillaahi azza wa jalla wa salaatu wa qiraa'atul qur'aan fa tuubaa liman banal masjid wa shayyada wa tuubaa liman sallaa fiihaa wa ta'abbada قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ومن آدابها صلاة ركعتي تحية المسجد قبل الجلوس لقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم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 wala alaaxiratu xayrun laka min al ula wala sawfa yuctika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka caa'ilan fa agna fa amma alyatima fala taqhar wa amma alsaa'ila fala tanhar wa amma binicmati rabbika fa xaddis allahu akbar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 asalaamualeykum الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليماً ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا تفصيلا di toll nii fu mu wàcc faaw yaa ko am yal na yàlla fay ñëpp yal na yàlla def ñëpp ñu muñ coono yi yàlla def ko ci seen balance yu ëllëg barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam su ko defee monsieur Niang ni mu ko waxee léegi monsieur le premier ministre ONG Al Khayriya 209 mosquées yi mu tabax yi pare yi nekk en chantier fan yi dañoo nekk ci visite de proximité ci mosquée yooyu pour xool est-ce que jumaa yooyu ñanga ca nañ leen ko joxe woon ba léegi wala màgget na wala jar naa peinture ci doxantu boobu nag ci la délégation bu alxayriya ci njiitul Mouhamadou Abdoul Fattah Sall bu Mouhamadou Sall jiite woon egsi fii ci tawa ngir xool fan la liggéey bi yegg laata ñuy wax monsieur le premier ministre ni ko jumaa ji la alxayriya may pare na ñëw na ba xool fan la travaux yi toll bi mu ko xoolee keroog ba ñibbi ci la kër gii ma jàkkaar lool di kër ku ñuy wax Baye Modou Sall tàkk ci suñ kanam keroog bi ñu ñibbi Dakar Cheikh Abdou Fatah defe naa ni ñaari baat yu wax ak man ci oto bi teg na ci ñi nu ñuy def ba dimbali leen parce que lii metti na imam teg ci ni xëy na yàlla moo bëgg a defar parce que kooku bu këram takkul woon sax ci ñu gën néew doole ci dëkk bi la bokk kon xanaa lu yàlla la da defar semaine ba ca topp ci lañ fi wàcc ak nature ak espèce ak nag comme ni ko MC waxe ci anam bu am am solo waaye deux semaines yëpp xolam moom ak xola soxna Alimatu Sall ak ñi bokk ONG Al nee nañ ba tey doyaluñ pour dimbali waa dëkk bi parce que daal ñoom yëpp lañ loo xam ni ci ndimbal lañu defoon fokk dañ ko dolli ndimbal loolu nag monsieur premier ministre moom la ONG bi ñëw ngir dolli ko teg ko ci sa loxo terale la ko duñ la jox rekk jumaa muy caabi ja déedéet waaye dañ lay joxaale teraanga nga dugal ko ci kër gu nekk ci biir tawa bañ xam ne yow sa ubbi gii ak sa caabi ji am na lu ko gunge loolu la ONG Al Khayriya nar def wal waajur mbokku Gossas mbokku tawa maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci sa seen sant sama wax ji du gudd ñaari baat la cant ak ndénkaane cant gi ma tàmbali di wax alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala wax muhammadin wa sallim ndax li ñuy fi tasalee tey masjid la mi nga nee ñu bind muy néegu suñu boroom donc dañuy sant yàlla occasion bi ñu am barkeelu ci mbir moo xam ne suñu boroom a ko moomal boppam alhamdulilah rabbil alamin bu loolu paasee dinaa sant kilifa diine yi ma fi fekk ah di ci tàmbali njabootu sama turandoo na Mohamed bun Abdallah Chérif maa ngi lay nuyu Chérif it maa ngi lay nuyu Chérif yi fi nekk yépp maa ngi leen di nuyu di sant a defe naa ne ku ne Seydina Mohamed fii ci réew mi sa xel dina dem ci ay mag mag yooyu sëriñ cene ba mu ngi ci biir te mag ñooñu ñoo andi diine ci réew mi donc maa ngi sant defe naa ne Baye Cheikh Ahmed Tidiane ku ko tudd di xalif général cene ba yépp tudd nga ñépp wante dinaa tudd fii sëñ As ndax ñoo bokk dëkk fii Gosaas moom ku ne Gosaas ne cene ba Gosaas waaw Gosaas moom kenn du ko tudd te tuddoo cene ba waaw waaw donc ñoo ngi lay gërëm Baye As di gërëm suñu papa it suñu sëriñ sëriñ Jibril Seck di nekk defe naa ni bu ma leen tuddee tudd naa ñu bari fii am déet sëñ bi ndax yow yaa xam mbir mi bëgg naa nag ñu jàpp la xarit ndax li nga wax ci sama turandoo ak ci diine daanu naa fi leer dinaa tudd yi ku ne cene ba ne kajoor it ku ne cene ba kajoor ne sëñ ma dikke tudd nañ fi samay bàyyi ma kontaan ndax sama yaay dëkk Gosaas sama papa Ibra Dione El Hadj Ibra Dione moom ak Ahmed Diop moom mu nga wax ak Mustayin ay dara ma gumba amaat ma géewul ñooñu ñooy samay papa dama juddu di leen di gis ñuy ànd waaw ma am ci turandoo donc Eh, ni nga tudd fii sànq sama xel dem na fu sori ma ñaanal sama papa yàlla xare ko àjjana ak suma yaay eh, maa ngi gërëm ndax eh, kajoor sori na ñu jóge kajoor yi yépp sëñ pap Madické im na sëñ Madické maa ngi lay gërëm yow it fi ngeen jóge sori na te lii yëpp ah defe naa ne bëgg lu neex sañ cene bala mi nga xam ne moo sañ taw wi moo tax ngeen jóg donc cant dinaa ko def ci yéen di gërëmit boroom dëkk bi chef de village ndax sëñ ma moom mooy borom dëkk bi di gërëm imaam ratib dinaa ci dellusi suma xarit di imaam xalifa Guèye di gërëm ki ma boole ak moom di monsieur le maire di sama xarit sama rakk Moussa Touré nekk nit ku dëggu ci biroom ca biir waajur maire yi waajur la fasante coloré ak imam xalifa nii donc maa ngi lay remercier ci te tuyaaba bu fi am yàlla na wàcc ci yow parce que lépp ci yow mii la jaare maa ngi remercier préfet nga xam ne moo fi toogal président de la république président makki Sall di ma Madické Dramé di remercier sous préfet ñoom ñu ñoom it ñu bàyyi seen lépp ànd ak man bi mu ñëwee ba léegi dina remercier it mosuma koo def wante dinaa ko def soo rakk boo xam ne mooy sama chef de cabinet du Sow jàmbaar la ndax suñu accès fii moo ma suivre chantier bi di fi ñëw di photo di ma yónnee mujj gi ah ñu ne dañ koy yokk ñu ne dañ koy yokk ñu yokk lu imam xalifa bëgg ñu yokk sëñ Abdou Fatah ne bismillah donc sëñ Abdou Fatah ak magam sëñ Chérif nga xam ne kóllëre la ak sama nijaay Baara Joxaane colonel Baara Joxaane ma nekk xale di ñëw ànd di la fa fekk ak jabaram nekkatu fi baara joxaane moom mu nga àjjana ak sama tante bi ñu fa daan fekk xale yi yëpp jébbalu ci yow nga nekk seen sëriñ donc euh, maa ngi lay remercier ci taxawaay bi nga taxaw ba nga xam ne bi suñu xel demee ci àll ne xëy na dinañu ci mën a jàppale ba nga ma ca déggee nga taxaw mottali ko ne dina am projet bi bu agsee fi mu agsi am na loo ci def Moussa ak Mamadou Sow bu ñu ma déyee ah al bëgg nañu xëy na dinañ la mën a jàppale ba nga ci ma déggee nga dem ci Serigne Mansour seen xalif li ma li ma li nga ko wax déy nga ma ko ñu daal di ne bismillah nañ ko def donc tey bésu cant la di wax alhamdulilah lii yàlla it may ñu tey ñu toog fii ak kilifa yiñ fi fekk yépp di njabootu seen cene ba donc loolu di sàkku ñaan pour président Macky Sall ci yéen ndax man bu ma nekkee premier ministre bu ñu ma ko wooyee dàquma jàng kenn ci réew mi ñi ma doon jàngal ñoo nga ci université ba léegi nekk fay professeur te ñoo ma jàngal gënuma fi juddu kenn gënuma kenn yàlla moo def ci xelu Macky Sall kóolute ci man insha allah allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim di ngeen ma may rek sama sëriñ bi nga xam ne moom laa àndal di sama xarit di xaritu président di sëriñ Askia Touré dama ko dëkk Fass Touré di waa kër sëñ Adi Touré bi ñuy ñëw dama kon woo dem ma ne ko ah sëñ bi man kat suba dinaa dem tawa dama bëgg nag nga gunge ma ñu dugg sama oto mooy jàngal ba ma agsi eh, eh, dama bëggoon mu barkeelu li may ubbee kàddu gi may ubbi xanaa jiital ziar rek ci Chérif Damel nga xam ne bàyyam bi muy génn àdduna man la mujj a gis boobu mu nekk fa ca Ndar ñu dëkk ndogon di ay nit ñu baax a baax a baax kii sama sama sama la damay am ay bis jox ko ko mu toogee ko mu war a nit ñi war a demal koy ñaanal nit ñi yeewi leen te moom ak shérif mii ak sëñ Abdul Fatah daanaka benn lañu sëñ Babacar am naa mbégte goo xam ni tey jii xaw ma fan lay yem ndax tey jii dégg naa fi xam-xam tey jii dégg naa fi wëllëre tey gis naa fi pas-pas tey gis naa fi wa may nuyu sama nijaay jële alpha bame nga xam ni Sëriñ Tuubaa ci seen giir la njëkk amee soxna mu dëkk Uramadiyu diggante seen maam ak maamu alpha yaa ay yolla rek ak lazina ko loolu di dox ba si ba si góor gi Cheikh Ahmed Tidiane nga xam ne bis bu jot saa yu yëkkatee kàddu rek président ne ma jox ko paracetamol mu dal ndax foofu dañ koy yeggale lu lee may wax dama ànd ak président bis Mohamed Mbaye di nekk ci liggéey bi ndakaaru ma ànd ak moom ngi dem Kaolack mor ñu faa fekk bisu àjjuma la ñu romb fii mu gis ay nit jóge fële di dox ba gis fii pour julli jóge julli juma mu ni Mouhamed seen jullikaay seen dëkk boobu euh, dëkk bii euh, waajur xanaa amul juma mu ne ko nit ngi def fële ñu jóge mu ne ko mais nag bu tàng bi li metti naa tey jii mi ngi dala ay ambassadeur mais bi ko kii nee dañuy inauguré jumaa ja xol gu sedd gi muy am tax na nee na ko demal te du ko bàyyi benn yoon nag du bàyyi kii ba 2 heures du matin su 8 heures mu yee ko kii amul neex nee na amul noflaay pour Mouhamed ñëw fii seen dëkk bi sax dafa jafe ndax li euh, lu président gi rek bëcc ko ko mu jël ko tas kon du mën a boole ñaar du ko mën a boole wante tey jii biñ ko waxee nekk ko dañuy ubbi jumaa ji te jumaa ji waa kër sëñ sëñ Abbas Sall ñoo koy ñoo ñoo ñoo ñoo ko defar dafa ne ko bàyyi fi liggéey bi tey dinaa la wuutu tuuti rek nga demal ma fee ba tey ñu joxe caabi ji ci loxoy Serigne Chérif Abbas Sall mu ànd ko ak Serigne Abdoul Fatah Sall ànd ko ak Serigne Moustapha bu Pape Mansour Sall ñu ànd ko ak ñu ko àndal ñëpp imam Ousmane Sy mi jiite jumaa ji tey ñoom ñëpp dañuy ñaan li yal nay barke waaye yal na gën a yaatu ci réew mi comme loolu la seen liggéey laaj lépp lu ñu def ci ay juma yal na yàlla sotti ko seen balance yiw bravo monsieur le premier ministre bravo say kilifa ba ci président Macky Sall mi nga xam ni li yéeneem mooy dëkku diine yëpp doon ay cité religieuse modèle ñu ngi sant yàlla cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem Serigne Cherif Ibn Abbas nee na lii ñuy def nii tey. na wiraasa la dono la. ñu ngi ko nampé ci Cheikhna Abbas radiyallahu anhu. ñu ngi ko fekk ko ci. ñu judd fekk ko ci. mu dem dénkuñu ko. ko. ba tey xalifaam bi di docteur Mouhamadou Mansour nekk suñu kilifa. ba tey ji xalifaam di docteur Mouhamadou Mansour Sall di suñu kilifa. Eh, yàlla def. yàlla def. bi nga xamee ni suñu mbokk bopp. bi nga xamee ni suñu mbokk bopp. di suñu goro. suñu goro. di suñu na lool nag. yàgg na lool nag. bi ni. dëkkam bi bëgg nañu loolu. di monsieur le premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne bi ma yëgee ni dëkkam bëgg nañu jumaa. Cheikh Abdoul wax ma ko. Cheikh mi nga xam ndax moom may kilifaam. ndax moom may kilifaam. waaye man it mu ni ma bëri na ñuy sàkku. mu ni ma bëri na ñuy sàkku jumaa fii ñu toll demande yi bëri nañu. sëñ Abdoulaye bii de. ma ne ko ah, dëgg la de cheikh bi waaye bii de. nañu fexe ñu jiital. nañu fexe mu bokk ci njëkk a am. ma ne ko may ma ma waxtaan ci ak docteur Mansour. ma ne ko may ma ma waxtaan ci ak docteur Mansour. ba ma ko waxee. ne ba ma ko waxee. mu ni ma loolu bu leen bu leen ma ci sax laaj. mu ni ma loolu daal. yaag Abdoul Fatah ak Moustapha ñi ngeen ko bokkal bu leen ma ci laaj jëf leen ko. mu ni ma yar gi ci Sidi Abdallah. mu ni ma yar bi ci Mouhamad bun Abdallah John. tey gi ci moom. tey gi ci moom. man daal euh, lu mu bëgg rek. man daal lépp lu mu bëgg rek. mu jaare ko ci yéen te ma war ci am baat. mu jaar ko ci yéen te ma war ci am baat. na ngeen ko def. na ko ko defal na mu ko bëgg. moo tax moo tax. yàlla dimbali ñu. yàlla dimbali nañu nag. dëgg la eh, yàlla moo dogal lii. mais dëgg la yàlla moo dogalee nii. waaye yàlla du wàcc di defal kenn jub. waaye yàlla moom du cëppeelu ci kaw suuf di tabaxal kenn. dama am fu mu koy jaaree. dafay am nag fu mu koy jaaree. ba mu koy jaaree. ba mu ci mbaaxu yàlla. ci mbaaxu yàlla. mi ngi ko jaaree ci ci pas-pasu Sidi Abdallah. yàlla mi ci pas-pasu ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne. ndax lii lu ñuy nettali la ëllëg. daañu fi nekk ay jun ay ba mu yàgg. daañu fi nekk ba mu yàgg. yi fi nekk. sët yi wax ni. daañu wax ni. jumaa jumaa jumaa. jumaay Tawa Gueye. di nga xam ni. di nga xam ni. Seydi Babacar moo ko jiite. Seydi Babacar Khalifa Gueye moo ko jiite. Euh, mi ngi sottee. mi ci kaddu. ci kaddu. Seydi Abdallah. Seydi Abdallah. loolu bu la ko yàlla fayee. ne premier ministre bu la yàlla fayee lool. loolu kenn nu mu toll. loolu kenn xamul Sëñ Abdoulaye caabi jaa ngi nii. ah monsieur Boun Abdallah Dionne Serigne Cherif Ibn Abbas nee na caabi juma ngi nii. léegi nag sa caabi ngoog. léegi nag say caabi juma ngoog moo xam da ngay jël ca juma ji yóbbu Dakar wala da ngay bàyyi fi. yaay seet nooy yaay seet nooy def ak sa juma. ñu ngi koy jox ñu ngi ko koy jox. kon mbooloo bi seede leen ni Serigne Cherif Ibn moom Abbas nee na maa ngi yëkkati caabi jumay Tawa Gueye. man ak samay frère ñoom Cheikh Abdoul Fattah. man ak sama frère Cheikh Abdoul Fattah. ak ñi ñu àndal. ak ñi ñu bokk àndal ci ONG bi. ak Seydi Mouhamadou Moustapha di sunu doom. ak Seydi Mouhamadou Moustapha ibnu Mam Mansour di sunu doom. ak Seydi Ndiouga yow mii. ne ak Ndiouga mii di wax. ak sunu jarbaatu bopp di Seydi Ousmane Dia. ak sunu jarbaatu bopp di imam Ousmane Dia di jiite léegi. ak sunu sunu doomu baay di Seydi Chérif Ibrahima Aïdara. ak sunu doomu baay di Chérif Ibrahima Aïdara mii daaneel kàddoom. Eh, ñun ñoo ànd. ñun ñooñu ñëpp nag àndandoo nañ ak ñi ma limul. ci ndigal docteur Mansour. ci ndigal sunu kilifa docteur Mansour xalifa waa kër Mama Ba Sall. ndigal li mu jëlee ko ci bàyyam Cheikh na Abbas. ndigal li nag mu jëlee ko ci waajuram bu tedd wa. Baye Abbas Sall. waajuram jëlee ko ci Cheikh na Ahmed Tijani. waajuram jëlee ko ci Cheikhuna Tijani Cherif. radiyallahu taala anhu mu jëlee ko ci Seydina Mouhamad Ibn Fadil. mu jëlee ko ci maamam Seydina Mouhamad di premier ministre. muy muy ndigal lu jóge ci yàlla. muy ndigal lu jóge sunu borom. kon boog. kon boog. bismillah bismillahi maa ngi koy teg ci sa loxo. sa loxo bismillahi allah kon remise baa ngoog macha allah. Euh, teewe na ko euh, ñi taxaw premier ministre. imam bu jumaay tabax yi yaakaar naa mu jël euh, yëkkati loxoom bëgg a daal di nangu ji léegi waaye est premier ministre dina ko jox léegi. Ah. maa ngi sant euh, santaat. monsieur le premier ministre nee na mënuma bañ a santaat. waaw euh, euh, santaat Serigne Chérif. Ah, di sant rakam yi. di sant rakam kilifa sëriñ Mansour xalifa bi ci caabi yi ma may tey ci caabi jumaa yi mu ma may tey waaw caabi yi laa wax nag mais caabi yi nag laa wax ndax waxuma jumaa ji mais waxuma jumaa ji de jumaa ji yàllaa ko moom mais jumaa ji yàllaa ko moom donc ñoo ngi koy gërëm donc ñoo ngi koy gërëm di leen ko sant moom ak sëñ Abdou Fatah moom ak rakkam yi sëñ Abdou Fatah fi sant yem fi sant yem waaw riixa walam yuaxir bil jalil walam yahtika sitri wa ya azima al afw wa ya xasina tajawuzi wa ya wasil mafira ويا بصيري برحمتي ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم السفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بنعم قبل استقاقها ويا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا أسألك يا ربي أن لا تسوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار أن لا تسوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار استجب هذا بحق التوراة والإنجيل وذوي والفرقان وبحق جميع الأنبياء من آدم إلى نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقدار عظيم وإلى جميع الأولياء خاصة أبو العباس أحمد التجاني وحافظ سره شيخنا عباس رضي الله عنه وأرضاه بآمين حفظنا الله وحفظكم جميعا والله خير حرزا وأرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا والآخرة وسلام بيننا وسلام هنا هنا هنا والحمد لله رب العالمين mbokk yi jërëjëf itam ñi ñu àndaloon ci liggéey bi jërëjëf itam euh, mbooleem koo xam ni yaa ngi jàpp ci li bi alaaji njuga euh, mbeng mi nga xam ni moom ci wàllu communication bi ci lay bokk tabaarakallaa ñu nekkoon nag ci tawa bi ànd ko njabootu sëriñ Abbas Sall euh, ci li nga xam ni mooy tabaarakallaa liggéey bi waa alxayri yëpp nag nga xam ni sëriñ Mansour Sall xalifa bi mooy président d'honneur bi tabaarakalaaw ñu sant leen ndax dañoo ñëw jàpp ci émission bi ñu tudde leen ay sponsor waaye jàppale la ñoom saa su dañuy jàppale diiney lislaam fu mu mën a nekk ñu ànd ci ak waa jot naa ci itam euh, yàlla na yàlla dolli leen dam ci barke Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni jumaa jii nga xam ni waa kër Serigne Abbas alxayriya gépp dañoo maase ndax ñoom yii la ñuy defar mooy euh, lu mel ni fu ñuy yare xale boo xam ne way ay juróom dañoo génn àddina amatuñ ku leen yar ñu jàpp leen dina leen ñu tudde leen Orphelinat ak ay hôpital yu ñuy defar ak i boulangerie lépp ci ci ci taxawaayu lislaam lañ ko def bu ñu gisee itam di jàppale waa réew mi ñu mel ni njiiti réew yi ak ñeneen yi nga xam ne sëriñ si la ñu jàppale leen ba nga xam ne dëkk ba ñu nekk jumaak yu mel noonu dañu ko mën a am moo tax ñu jëloon jumaa jile jébbal ko dëkk bi nga xam ne mooy waa Tawa Gueye ci euh, département bi nga xam ni mooy Gosaas nga xam ni premier ministre mooy mair bi yal na yàlla dolli leen i ndam te yeggale ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam sant dool nag ci liggéey bi ni ngeen ko gisee euh, Serigne Serif Sall euh, taxaw ci taxawaay bu am solo moo ki nekk ci bopp bi nga xam ni moo di sunu xarit si Abdou Fatah Sall mi nga xam ni moom mooy njiital alxayriya waaye nag soxna Alimatu mi nga xam ni tabaarakallaahu mooy euh, ka nga xam ni bëggul sax ko tudd turam ndax ma nga ca kaw waaye nag euh, liggéey bi nga xam ni sëriñ Moussa Sall ak njabootu sëriñ Abbas gépp dañ ko doon def mu di ko taxawee taxawaay bu am solo te bëggul fu fenn fu muy feeñee kon nag yàlla na yàlla dolli na ay ndam ñoom njabootu sëriñ Abbas yëpp waa kër sëriñ Thiénaba it xam nga lislaam day benn ndax sëriñ ba Sall ak euh, Sidi Hadji Malick sëriñ Touba ñoom ñëpp fu ñu fekk lislaam dañ ciy jàpp moo tax waa Thiénaba ñaari Thiénaba yëpp Euh, ba sekk euh, yi nga xam ne euh, ñëpp ci njabootu maam Amary Ndaak sekk lañu ñoom teewoon nañ ci bis bi ñoom itam taxaw ci taxawaay bu am solo yàlla yàlla dolli leen ndam xam naa di leen jox rendez rek ci yeneen jumaa incha allah ndax ñoom la ñu fas yéenee àndal jumaa ju ñu dem rek. ñu ñëw jàpp ci liggéey bi mel ni lu mel ni sponsor waaye jàpp ci liggéey bi pour ñu mën koy seetaan saa su ne fii la ñuy tàggoo ak seen xarit Ndiaga Seck Adja Mbéru Sarr moom la ñu àndaloon ci montage bi ak ñi nga xam ne ay caméraman lañu muy Ibu Cissé bu bàyyi ak mbooleem sama xarit yi yal na yàlla dolli na bàjju maag jàpp bismillahi rahmani rahim